laa ilaaha illa laa faal laa ilaaha illa laa laa ilaaha illa laa laa ilaaha illallah la ilaha ilaha illallah la ilaha illallah fala maam Cheikh Ibrahim Fall gis liggéey bi di nga xam ne ñi na lu leen sëriñ bi jaral leen def leen moom pertu kii ay gaynde pire la leen def moo tax lii di mën a ñëw nii ci sëriñ bi loolu nag du kenn ci noonu ba ci général mi jiite liggéey bi dañuy xam ne sëriñ Cheikh Fall jëmb mi toog rek kii léegi laa ciy wax ak Baye Mbaye Silla fi mu nekk ku ko fi fekk mu def la li mu doon kii doxewul sagoom capp cappalul yoon yi fayewu ko mhm. li muy liggéey sëriñ bi ànd koog ñooñu seerafal yi alal ji lu piir la ci moom lu ko sëriñ bi dimbalee la diig fa laa nekk ba ñaari waxtu kon sëriñ bi fi mu nu yóbbu foofu lañ bëgg a dem te seerafal danaa wax ni sëpp sëw maa ko mën a dem waaye seerafal ngi ni toog soo bëggee doon gaynde da ngay ànd gaynde piir mu def la li mu doon dañu wax ne ku sul bàyyi dul gaynde boo dul gaynde mën a xongal bët ban wege la ko ñun ñooy doomi xoli Serigne Cheikh Fall jëmb alal ji ci biiram la juddoo bërki démb bu tey topp ci yóbbu nu fii nu ne kon kii rek la Serigne Cheikh Fall jëmb wax na ni doon ma Cheikh Rafal damaa doon Cheikh Rafal teg loxoom ci dënnam waxantu ko wàcce ko hmm. alal ji ku xool ci ñoom seenu doxin di nga xam ni dundul Cheikh Rafal dafa doon Cheikh Rafal man Cheikh Rafal a ni toog ci la Cheikh Rafal di passé ak sama gars yi ko eseg doo jàll kii mooy Sidi Ibrahima Fall doomi sëñ Mourou Moussa Fall ji kii moo defaat yoon wi fu ko kenn mës a teg yóbbu ko fu ko kenn mës a yóbbu def fi lu fi kenn mës a def toog lépp di dox Cheikh Rafal rek a ko mënal boppam Cheikh Jëmb Fall yàggal duñu yaa Fall. amiin amiin wi démb yor xiin gi yor kalimatul xaq di laa ilaha illallah di lu saat jamono di ko gàddulaat kenn day toog lépp di dox. Serap Fall gi nii. Serap Fall xiin la yoroon ak ngajju ak kuurug Baay Fall ak turu yàllaam. bi mu dellu see nag yooyu yëpp sëriñ Bamba da ko koo wekkil tegal ko nale mu dellu soit di Sidi Ibrahima toog lépp di dox Serap Fall gi nii ci lay passé examen gars yi ko échec doo jàll. kon li li alal ji doon sëriñ Seex jëmbat na ko def kii fayewul li muy def ma ngay li muy def damay wax ni su doon damay làkk tubaab dama naan doon la ci moom lu pur la ci moom mmh. li exceptionnel la mmh. loo xamante nii mmh. ku ko di ku ko gis muy dem di nga xam ne li muy def fii rek la ko serafal bëggee waaye nag danay xam ni ki ko ñaas ku mu ñaas booy sëlmu ba déwén looy sëlmul ñaas bi gën a leer waaye du fi jëg saa su ne kon serafal a ngi nii لا إله إلا الله jërëjëf jërëjëf. la ilaha illallah. sëñ bi maam jërëjëf. maam jërëjëf. illallah fa la ilaha illallah sayyiduna ya rasulullah sallallahu nabi sayyiduna ya rasulullah fal sallallahu nabi li nu yëg du lu nuy mën a wax du lu nuy mën a wax ci mbooloo mi du nuy mën a wax ci makaro yi mm-hmm. yëf yi du wax ju bari bàyyi mag gay yëf yi wax na boppam bu yàgg. yoon yi doxul dafa naaw. far ku demul rek yaa demul waaye bam naawee yàgg na. kii ya mën a dem. te fa mu dem. fa la yóbbu góor ñi. ñu bari dañ may xool ba ci yàgg ñuy waxaat leneen ci man. kii boo gisee ma bàyyi ko xel. naw ko lool. su ma koy xool dama mel ni sama jëmm laay gis. ñi ma àndal ci waar xam nañ loolu. Mhm. Mhm. day wax biig ni ay bokkam daan ne ndokk ba ko yàlla xiirul ci muy def leneen dul yoon yi waaye kon fu ñuy dégg bandi yu mag ya fa lañ koy dégg. Mhm. ci fitam ak ak ak ak lu mu nekk ñor na ko. dama doon wax ni dama leen daan wax ni. su ma fekkan sàngara ci yoon yi su ma man de ñii naan tëri. ñi ma xam ñëpp xam na loolu. waaye li ñuy naan mooy leerug maam Serigne Fall ci la ñuy mànd bay tertere ba boo doon xoolee di nga xam ne ñii ay góor lañu te naanukaay baa ngi nii kii mooy kenn bi dul ndax du dëñ kii ko fi siggi soo mandee da ngay fees dell ak yàlla fees dell ak Serigne Fall dootoo soxlaa naan fenn ku ko ñam ba yàbbi ko loo saxati day leer fi yow waajaa ngi nii kii mooy sunu maam Serap Fall. jërëjëf. xalaas jërëjëf jërëjëf wa rahmatullahi moom dañuy wax jërëjëf sëriñ Cheikh Jëmb Fall. jërëjëfati sëriñ Cheikh Fall Jëmb. jërëjëfati sëriñ Cheikh Jëmb. nan gën a dollee sant bu baax. Mm-hmm. xam ne ku yàlla dimbale. ba nga xamee ne yaa ngi. jamonoonte ak sëriñ fa suñu Seex Fall jëm mi rek am nga pajum ajo fii ñu ne ak fa ñu jëm rawatina nag nga di ko liggéeyal sëñ ma seer léegi li mu wax noonu bu ñu amee dëgg dëgg dëggantaan xam ne Cheikh Fall ma woon moo dellusiwaat fii nii ndax la waral loola mooy waajuru mu tedd bi da koo tànn ber ko ndax moom mii moo ko wax de. nee na ma fi nga xamee ne fi la sama doom yi bàyyi fan yi leen daan yóbbu. bokkul ak fi ma sama bàyyi yóbbu. bañ jàppoon ne moom. bokkul sax ci mbir mi dëggantaan. ndax nañ ko bere waaye li nga gën a bëgg dëggantaan ci gaal nga koy def tëj ko. moom nag da ko dañ ko bàyyam ci boppam da koo jëloon. dugal ko foo xam ne fu mat a dugg la. koo xam ne fa mu newoon la fa ne Cheikh Fall da ko faa def te mu war a jariñu ci àddina te kooko bokkutoon ci ñi nga xamee ne dañoo war a seex ci àdduna baayam ne mu ne baayam da ko wax ne ko demal jëli la fa ne téye ko ba sa wàll ñëw nga door ko tasaare xanaa xamoo ne sëriñ Cheikh Fall jëmm mii toogaayam beeg meggam ak deggam gi nii dafa diis gan te xamul fu mu koy sotti waaye nag ndokk ba nga xamee ne loolu tubaab di wax trouvé am na ci loo xam ne yéen a ngi koy trouvé trouvé lu leen lépp de. déedéet. sëñ Cheikh mi kenn mënu koo xam. waaw kenn mënu koo xam kon ndokk ba nga xamee ne am na loo xam ne ma ngi leen koy won lu law di leen ko flasloo bu ñu góorloo bu ñu nee jàkk sëriñ bi nan xam ne dana lu ñu bëgg xanaa lu ñu bëggut waaye lu ñu bëgg Cheikh Fall danañ ci fekk si. ndax li nga xam ne mooy bàttinub Cheikh bi mu ngi ci moom. liy sañ-sañub Cheikh bi mi ngi ci moom. liy man-manu Cheikh bi mi ngi ci moom. liy xam-xamu Cheikh bi lépp mu ngi ci moom. te ni ko sëñ Massaer waxee léegi rek ñun ñooy doomi xolom yi. te li nga gën a bëgg sa doom lay doon. ndokk nag ba nga xam ne danoo daw dëmmal sëriñ bi. yéen day gën leen a rafet njot gën leen a rafet njort te gën a góor góorgóorlu sunu tàmbali dama leen daan wax naan leen nit dana nekk ci dara te du ko xam waaye la tax ma leen doon wax naan lee nit dana nekk ci dara du ko xam mooy sëriñ bi laa xam xam fi mu ne xam fi mu toog te xam naa ne jafe na doom aadama dem ba àgg ci moom ngir wut ci moom dara xam nga lu muy gis ci sëriñ bi tey bu noonu ab jëmm la ma ne takk ndeer lañuy gis waaye jëmmi sëriñ bi dëgg-dëgg gisaguñ ko. xam nga lim nit ñi basé ci doomu aadama yi ak sëriñ bi ni muy toogee jàpp ñaamuram waaye lifi fi moom la sëñ Moussa Ka waxoon ne Cheikh Rafal la li daloon Cheikh Rafal ci sëñ Touba mu ne mu ne mu ne tuuti kon mu dem ba kenn dootul ñam ci baatinam mooy mooy Cheikh Rafal nii te lim li mu yore soxla wu ci lenn lu dul ndee fii kon ndokk ba nga xamee ne yéen da ngeen a daw dënmal sëriñ bi da ngeen xam ne kat sëriñ bi dana leen katandu te da ngeen ko bëgg sëriñ bi dana leen ko defeel ndax jëme wuleen ko ci kër kenn ku dul lu jëm ci ci ci sëriñ bi rek am na loo xam ne li naan wax waxaat bari wax la waaye leeral la rek waaye jëf ji moom wane na boppam mooy la ma waxoon démb rek jëf ji wane na boppam ba noppi li muy ñaan kay lim naan doomi ñay kenn du ko ñaanal rëy man koy ñaanal gudd fan rek yéen dox leen rek ni ne laa ilaha illallah laa ilaaha illallaah dox leen li ngeen bëgg sëriñ bi xam na ko te li ngeen bëggal sëriñ bi xam na ko dana ko def jeex na tàllal leen loxo yi sëriñ bi. laa إله إلا الله فعل لا إله إلا الله bismillah barke borom Touba asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu soxna Dialibatu Cissé sa ma wacalama Fall ma ci buntu euh, kër euh, Serigne Cheikh Fall jëm xalifa général des Baye Fall borom daara ji dalalu Sidi Ibrahim sunu waajo murid bu mag ba ci euh, jëbbal li nga xamante moom mooy addiya ndogu yi nga xam ne ko baaxoo jëbbal ci kumte bu nekk tey nag nekkoon ñetteelu kumte bi ñu ñëwoon fii nag doon ko indil ndogu yi ndax daara gi dañoo baaxoo Ah, bu ne suba la kumte ñu indi eh, li nga xam moom mooy addiya eh, nagu kumte wi waaye bu ñu xëyaatee tamit ah, daal di eh, togg ay ndogu foofu ca kër jëwriñ ji généralu daara gi di Seydina Omar Seck nooru daare ni général murid bu mag wax Ibrahima Fall nangu ndigal waa jàmbaar Serigne Cheikh Fall jëmb indil ko fii Serigne Cheikh Fall jëmb bu joo xamante ni Serigne bi jël na ay ndogam yóbbul ko Serigne Mountakha Mbacké xalif général des Mourides yàlla ñu fi bokk yàgg loolu tànd ak wér bu ko defee bu mag ba ci jiital Seydina Omar général daara ji nooru daar yi moom tamit ak ñi ànd ñëpp ngi daan yenu seen ay ndogu jóge ko ba Touba Guédé indil ko Serigne Cheikh Fall Jëmb lépp rek ngir dàkk ci mbégam mi waaye baaxoo nañ tamit uh, kumte gu jot rek dinañ indi million ak la koy tegu lépp boole kook ndogu yi waaye uh, berne yi ak lépp loo xamante ne moom la ca uh, aju ñuy jaajëfal bu baax a baax mboole waa daara gi di alalu Sidi Ibrahima Fall sunu waajee murid bu mag ba waaye nag ba léegi nag addee uh, ji dañ koy wéyal di ko laaj ndax kenn ku ne xam na ne ñetteelu kumte bi su jàllee tamit ñu ngi waajal li nga xam moom mooy korité gi korité gi de daara ji di alalu Cheikh Ibrahima Fall murid bu mag ba uh, dañ cee baaxoo indi li nga xamante ni moom mooy nagu korité wi am na nag boo xamante ni fas yéene ko koo indil mu toll ci million ak neuf cent mille nag ba waaye euh, bu bisu Korité gi incha allah rabbi fas yéene rek tamit togg ay miche yu baax ak ay aju yëpp ngir jëbal ko ki nga xam ne moom mooy Serigne Cheikh Jëmb Fall borom daara gi di euh, alalu Sidi Ibrahim Fall sunu waajee murit bu mag ba kon ku lu ko xamante ne am nga pas-pas ak yéene ju rafet ànd ak ñun liggéey yëpp euh, Sidi Ibrahim Fall bi mën ngaa jokkoo ko numéro Orange Money yi wala numéro Wave yi Abdou Omar Seck la 78 534 89 11 78 534 89 11 la waaye Wave la.

moom tamit orange money la waaye wéef la ci turu Diagne Cissé wala beneen transfert boo xamante ni ah, jublu la mbokki talibé yi rek buñ ko ci tàmbalee at yi joju dinañ ci jot lépp rek ay ah, ngir ah, sakko ko mbékk ak ngërëmal ki nga xam ne moom lañuy liggéeyal muy ki nga xam ne nee na doon ma Cheikh Ibrahima Fall waaye dama ko doon moom Serigne Cheikh Fall jëmb danañ boo ko yàgg lool tànd ak wér waaye ku kullu koo xamante ne bokk nga ci daar gi alalu Sidi Ibrahima Fall alalu Cheikh Ibra yi ah, fu ñu mën a nekk ci réew mi ak ci biti réew moo xam ñu ne ci diaspora bi la ñoom ñëpp di leen di jaajëfal ah, bu baax a baax di leen nuyu di leen sant waaye di leen jaajëfal di leen ñaanal ñoom ñëpp ak mboolem ñi nga xam ne moo nekk diwaanu Sénégal ak di ko wër ñoom ñëpp nekk ay jàmbaar nekk ay gaynde pur comme ni nga ko waxee ndax ku ànd ak gaynde wax dëgg yàlla gaynde rek ngay mën a doon te alali Cheikh Ibrahima Fall ki ñu àndal day gaynde gi nga xam ne moom mooy gaynde genn gaynde li ci biir gaynde yi moom Serigne Cheikh Fall jëmb euh, kenn képp rek dong euh, ndax jamono junne saa su ne mi ngi wane li nga xam ne moom mooy dooleem ci euh, daaram ji comme ni nga ko waxee nag ay doomu xolam lañu te neewoon nañu bi laat avant ñuy defar li nga xam moom mooy këram gii di ko yeesal neewoon nañu xal leen lu ngeen xal naa leen def fekk téengu leen rek man maa yenu nag yaakaar naa lépp rek moom la moom ki ci biir moom Serigne Cheikh Fall Dieng yàlla fekk lool ah, ànd ak wér moom moo ñu dooleel jamono junne sasu ne ah, di wane ah, bu baax a baax dooleem ci alal ji waaye jamono junne sasu ne kennam geek mbaaxam gi dañ koy fësal di ko béral ba moo waral nag ñi daal di teew fii ci biir këram gi ci Palène ba Bawol ñaari bay Fall biir kër xalifa général des Baye Fall borom daara ji di Serigne Cheikh Fall Dieng yàgg lool ànd taalibe yi ñu yàgg fi lool uh, te ànd ak wér kon nañu takkaat la xasaay bu baax a baax waaye uh, xam li nga xamante moom moo ñu indi jamono muy liggéeyal ku tedd gi waaye mais bu mag ba Sidi Ibrahim Fall sunu waajo murid bu a uh, alalu Cheikh Ibrahima yi jamono juney saa su ne ci biir kër Serigne Cheikh Fall jëm Paleen Mbacké ba ñaari Baye Fall muy lu am solo kon yàlla nañu eggale koor gi ci ak salaam jàmm waaye korité ci jàmm ak salaam ñëpp am ay milliards yu bari lool comme ni ma ko faral di ñaanee fan bu gudd wér gi yaram waaye milliards milliards milliards milliards ci doole yi Diallibatul Maraaxib ñu ngi koy euh, ñaanal kull koo xam ne rek euh, ndeysaan sa numéro mi ngi ci daara gi di àlalu Sidi Birahim Fall sunu waaja murit bu mag ba waaye waa diaspora bi leen bere ñoom it nuyu ak cant waaye di leen ñaanal ñoom ñëpp rek fu ñu mën a nekk ci réew euh, borom subhanahu wa taala jël ko jox leen ko ñu liggéeyal ki Sidi Ibrahima Fall sunu murit bu mag ba ñi nga xam dañoo fétti ci biir réew mi euh, a nekk ci ñoom ñëpp rek euh, ñoom it leen di ñaanal bu baax a baax saxaadatan wa barakatan wa xaafita fi daari nii ci barkeb murit bu mag ba moom si Ibrahima Fall jërë ngeen jëf wasalaam jërëjëf borom Touba